li gën a grave mooy ay jigéen lañ doon attaqué ay jigéen lañu blessé et di masawu aussi benn conseiller suñu biir boo xamante ni blessures yi am na ay conséquences ci grossesse bi mu amoon finalement dafa avorté ba tey mu ngi tëdd kon donc ñu koy masawu bu baax te di ko xamal askan la xew keroog nag ñu ci bari gis nañ ko. parce que bi maire wootee ñu woote conférence de presse dafa am ay kilifa yu ci dox ci diggante 24 heures wala 48 heures yu doxoon ak conseil bi muy représentant délégué de quartier yi muy aussi les femmes ambassadrices yi nga xam te ne ñooy dox pour la paix dans la ville de Thiès dans la région même boole ko aussi ak le sous-préfet lui-même biñ ñu woowee. pour wane ni ñun li ñu ñor mooy que ni li askan wi moom ñu dénkuñu ko mu nekk suñu ay responsabilité naka lañ koy doxalee teg ko ci li nga xam te ne moom la charte yi nga xam te ne moo encadré code des collectivité locales wax ñu ñëw bi maire waxee ak ñu toog ak moom préfet ñëw am lu mu ñu wax en privé bi ñu ko waxee ñun ko ñun monsieur le préfet ñun xeexuñu ak maire xeexuñu pour bloquer dara mais dafa am loo xam te ni li ñuy laaj mooy li yoon wax parce que yow mënoo ñëw ñu nekk ci biir mairie bu ñu defee conseil ba pare y a certaines questions yow dañ la ko laaj nga ni yow gisoo ko sax ci procès verbaux yi te ñun ñu waxtaan na ko biir conseil municipal kon donc cela montre que ni suñu ay procès verbaux dañ koy modifier donc on a besoin de ces procès verbaux beneen bi muy marché yeeg ak li ñuy doxale ci biir mairie on a besoin des informations parce que mën ñu toog pendant bi ñu nekkee ba tey plus de deux ans ñu am droit à deux comptes de gestion parce que bu ñuy dugg mois de juillet bi si la ñu war a am le euh, troisième compte de gestion maire ba ñu jox benn convention yi ñu signe woon ñu gisoon ni ay engagement avec des privés respecté wu ci dara beneen bi suñu xaalis daf ñu waxoon ni dafay def ay audit def aussi des choses gisuñu ci don ak legg bañ fi nekkee ci mairie bi ba tey benn gisaguñ ci buñ ci délibéré ñun ko on veut que ces choses là ñu tax parce que mënuñu ñëw loolu en tant que le préfet parce que je l'ai introduit man ko mënoo ñëw sous préfet ngay assister à une réunion administrative alors que mënuñu commencé par une lecture et adoption donc du procès verbal de la réunion précédente donc mënul nekk donc si le préfet assiste à tout ça ñu ñëw ci biir ñu waxtaan mu ne ñu donc man li ma leen di ñaan mooy ngeen dem voter et li maire di def donc woote parce que problème mu xaalis la te damay bañ xaalis bi tombe donc en fond libre donc dama leen ñaan parce que même maire sax bi ma waxee ak moom ne woon na bu ngeen ñëwee après man ma woo ko mu ñëw et tout ça man ko monsieur le su préfet loolu amul solo parce que on était là ensemble en groupe ni ko ñun amuloo mu ne léegi bu loolu weesoo léegi document yi ngeen soxla yépp dina leen ko jox parce que dinañu waxtaan ak moom kon non document yi moo war a jiitu su fekkee dañuy bëgg doxal mbir yi ci yoon ñun donc li nga xam te ne moom la ñu trouvé comme compromis waxtaan donc na de na de déplacer réunion bi de deux trois jours jox ñu ko les documents ñu étudier ko bu ko defee ñu ñëw réunion loolu nag mooy moom la ñuy jéem a indi ne dañu ñuy jaxase ak askan bi dañuy jéem a bloqué on assume pleinement parce que suba ñun ñooy delluwaat ci askan bi bu fekkee loolu mooy bloqué demander les comptes xool euh, càmbar alalu askan bi fan luy dugg ci lu leer doxe ni nga xam te ne moom la ñu teg si wax ak loi yi bu fekkee loolu mooy ñun xeex wala dañuy jéem a yàq sax on assume parce que dañuy dem après envers les populations beneen bi nga xamante ni mooy ci biir salle bi am na yenn conseil il paraît que yu ni jotoon na jot nañ sax am compte de gestion bi ci biir salle bi lañ ko fekk et conseil mais malheureusement dafa am ñaari mbir yu ci am compte de gestion boobu amul cachet amul visa perce euh, percepteur parce que compte de gestion dafa war a am une approbation donc du receveur percepteur municipal quand on est allé voir le le receveur percepteur municipal mu ni moom amul avec le maire une seule information financière depuis que mu ñëw fii et le maire a dit que il a reçu le compte de gestion ci mois d'avril et que le le receveur percepteur municipal ñu ngi ko fi affecté mu jël fonction au début de l'année e nee na moom amul aucune waxu sax jox ko compte mais amul aucune information et donc financière entre ñoom ñaar donc fan la ñu jox le compte de gestion bi et que le sous-préfet mi toog ci boppam lijjantiwul loolu en tant que contrôleur de légalité donc yooyu mooy li nga xam te ne moom la ñuy jéem wax pour que mu ne beneen bi muy mënoo ne da ngay def conseil municipal nit ki war a ñëw ñun da ko war a jox les documents et tout trois jours francs avant la date la convocation donc moom amul benn dossier yooyu yëpp on a demandé au sous-préfet mu ni non loolu jaadu na mais bàyyi leen voté leen voté leen mais n on n'est pas là pour de comme des marionnettes ci loo xam te ne xamoo chaque jour ñun négocier leen parce que ñun li ñuy wax naan ay intérêt personnel la quel est l' intérêt personnel dans ce que nous faisons qu'est-ce qu'on y absolument rien lu dul am une conscience tranquille envers les populations yi ñu faloon pour que suba ñu mën leen xol les yeux dans les yeux pour que suba ñu mën a dox ci dëkk bi librement kenn du ñu wax nit ñi bañ leen fale dañoo nekk di ànd ak maire di lekk xaalis askan wala dañu doon comploter nangam ak naa on le donc on assume pleinement suñu démarche parce demain ñun ñooy delluwaat ci askan bi par rapport à beneen bi maire nee na dañuy xañ askan bi social une chose très grave mu ne dañuy xañ askan bi tabax ay école dañuy xañ askan bi donc curage caniveau yi dañuy xañ askan bi nangam dañuy xañ askan bi nangam. le voté budget bërki démboo Ndiaye donc le 25 ou bien le vingt 26 décembre dañ la voté le budget budget bi ñu élaboré ci donc. tâches yooyu yëpp pour toute l'année demaguñu cinq mois nga ne xaalis boobu amu fa dañ kaa war a dugalaat ane xaalisu curage bi ñu voté woon ci budget bi ane xaalis bi ñu voté woon donc pour pour euh, social bi et li grave mooy ci tabaski bi ci korité koor gi yéen am na ñu ko wane ci seen ay journalistes yu ko wane mais dafa ni il a fait commande de quarante tonnes de riz pour les populations à hauteur de vingt cinq millions et poussière pour dimbali néew ju doole ji et loolu sax c'est à la veille de la Korité ci dernière semaine bi la ko doon def la ko génne mais comment mu ñëw taxaw te alors que ñenn yi la rece nu fournisseur bi nee na 10 tonnes la joxe ani trente 30 fan la dugg kañ la ko recevoir kan moo ci bénéficier wu wala xaalis boobu animu aucune réponse par rapport à ça aucune communication par rapport à léegi mu ne donc dañuy dugg léegi ci tabaski bi dañuy xañ askan wi seen xaalisu social wala li ñu war a dimbalee ci tabaski bi c'est absurde parce que ñoom au contraire ñuy dund ci kaw askan bi parce que bu ñu nee euh, social nit ki da nga koy dimbali dafa war a am un mandat boo koy defal parce que day dem au niveau donc euh, du CPRS donc service social régional ñu defal ko donc attestation d'indulgence mu dem au niveau de la sous-préfecture ñu jox ko certificat d'indulgence mu jël certificat d'indulgence ñëw au niveau de la mairie pour que nga defal ko mandat mais ñoom du ñu def loolu li grave mooy dañuy dem au niveau de la perception defal seen ay mandat jël nit ki alloué ko. nangam ci xaalis dem génne xaalis bi montant global bi des dizaines de millions ñëw téyu ko ci biir maire bi di def nu leen neex kon ñoom ñooy dund ci kaw askan bi parce que askan bi ñu war a allouer un montant considérable moom da koy ñëw yëkkati nit ki jox ko alors que kooku mandaam dañ ko caa def peut-être un montant de cinquante mille cent mille ou bien plus même alors que il revient pour qu'on lui don donc ay miettes ay quinze mille pour wan leen leen ni ñu ni ñu soxoree donc ñoom ñooy utiliser askan bi pour di jariñu ci seen kaw. présentation bi rek jublu ci wane à ce que du benn parti politique rek moo daje sëkk ak maire bu commune ouest ci mbiru politique population Thiès ouest kenn ku ne ak parti ba nga bawoo ak parti ba nga bokk ku gis ni ñun ñu bokk Benno Bokk Yaakaar waa Pastef ñoo ñu fi jëlee mais tey suñu joxantee loxo. c'est parce que commune ouest ñun ñoo ko bokk xeex bi du xeexu au niveau national mais suñu commune d'abord ndax dañuy seetaan ñu naax saayal suñu commune ba nga xamante ni képp kuy dugg nga xamante ni Thiès ouest fi mu féete si biir euh, si biir commune bu Thiès dafa jéggi dayoo si ay entrain mu doon mu nekk entrain yoo xamante ni ku dugg waroon ngaa sentir que ni yaa ngi commune su ouest mais tey la ana lan moo ñu teg loolu amul benn yoon boo xamante ni maire indi na ko budget nit ñi bañ ko voté dañoo ñëw janvier deux ñu wooteel ko budget maanaam budget bi ñu woote ñi ko woote ak ñi ko vootewul ñoo ci yam responsabilité l'essentiel jox nañ ko budget mu liggéey ñu départ ak moom quatre cent et quelques millions ba huit cent nangam million mais nag ay la yéen huit cent et quelques million commune boo ko dugal gisoo pavage gisoo éclairage bu nu mel parce que ku ne xam na ni commune Thiès Ouest ñuy profité di remercier le délégué bu lekk délégué régional may nañu ay làmp ba waa Somme mën a leerlu parce que Somme bari woon na agression mais suñu moroomu conseiller bu ñuy wax euh, merem mbuub moo waaxu dem ba Sénélec ñu may ñu ay làmp ñu def foofu te te pourtant Siré Ousmane Ngom si commune Thiès Ouest ñun dañoo am budget yoo xam ne dañ koy woote pour éclairage mais nëgam suñu soxlaa leerlu dañuy dem Saint-Louis ak ñaani làmp kon jar nañu taxaw seetlu cooli cooli yëpp li ko waral mooy lañ doon wooteel maire si ñaari ñaari cinquante millions ñu woote ko si boulevard Bat ñu ne ko maire taxawal stop dañ la doon wooteel gis ñu pavage gis ñu gros porteur téere bii si HLM Safraco nga xamante ni si Alioune Sow lañ ko mais indi lu ñu kayit goo xamante ni day wane moom si ab santième lañ ko collecturé ñu ne ko nag faaw ñu am taxaw seetlu xaalis bii di xaalis di l'argent du contribuable xaalis bii nga xamante ni doomu Thiès Ouest ñoo ko moom ana fan nga ko dugal jox ñu ay compte de gestion ñu boole ak compte administratif yi mën kaa saytu loolu koo ko wax mu nar lu jub du benn problème day ñëw teg ci kaw taabal bi looloo indi blocage ci moom mu utiliser nag ñaari force benn force bi heureusement dañ si ñaanal suñu sëriñ di référence di idole si ñun di di di muy sëriñ Moustapha Sy Al Amine di sëriñ Moustapha Sy di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tëwee ñun on n'a pas de problème ak benn Moustarchidine ñun ak Moustarchidine yi ñoo bokk Sénégal ñoo bokk Thiès ñoo bokk tarixa Tidiane te tarixa cheikh dañ dañ ñuy boole rek mais kenn duñu xaajale kon foofu lañ jéem a njëkk a essayé heureusement ñoom ñu am maturité sëñ Moustapha xam na ni ndaw yii nga xamante ne moom moo leen jaral boppam def si ñoom jàngat du duñu xeex mukk lu jëm si diine mais gestion bu jub rek nga xamante ni sëñ bee ñu ko yaree loolu la ñuy interpellé ki ñuy wax du Jiite yàllaa dogal nag muy maire yàllaa dogal gestion bi mu jaaree si moom loolu lañ koy laaj réussirul côté religieux mu lëkkaloog ay nit ñoo xamante ni képp kuy wax suufu Thiès di nga leen si tudd ñoom ñu dem dernier conseil bi ñu woote comme ni ko sama collègue Ousseynou waxee bien vrai que am nañ jigéen si ñun boo xamante ni dafa avorté si coo loolu yéen ñëpp a gis image yi fan yaay ñoom ñi farag si maire jël nañu ay image yoo xamante ni si vidéo surveillance yi nekk si biir mairie bi nga xamante ni amul benn affiche bu ñu wanee ni mairie bi am na vidéo pour takkal ñu si mais vidéo yooyu yëpp di génn kenn ku ne da sañse correct ñëw di dox mais vidéo yi nga xamante ni moom la nit ñi mujjee gis mu tas si téléphone yeeg yëpp ñoom la seeni nervi àndal police taxaw si wetu nervi yi ñuy gaañ ay nit gaañ nañ ay jigéen gaañ nañ ay góor bàyyi Serigne sàmm mii su yàlla deful woon sutura mën na see ñàkk bàkkanam dañ kaa xoj bëñam bi dal si tuñam bi man mii ñëpp a gis vidéo bi nga xamante ni dañ maa boobu ma xam amul kenn ku ko gisul mais kaka def di Habib Kane mi indi cooli ànd kook maire dossier bi jébbal nañ ko procureur ñu nag li ñuy wax population man population bi lay waxal seen doom yi ñu attake ba am jigéen bu ci avorté amul benn yoon boo xamante ni ñun bañ nañoo voté budget njëgeen mii ci koor yi gis ngeen ko muy joxe ay ceeb ak i dëwlin ak i tànnar ma man yéen taskatu xabaar yéen ay couvrir may joxe samay sobleeki pomme de terre samay ceeb ak dëwlin kon kuy joxe nan ngay xañee nit suñu sañoon ñëpp ay am mais non seulement moom heure bu ne day joxe su nee day joxe fukk benn lay joxe sànq émission leeral na ko duma si ñëwaat mais li waral coow li lépp dafa am daf daf ne dafa jënd sobleeg pomme de terre onze millions cinq cent daf ne dafa am ñu mu jox ay marché ñi mu jox ay marché ñañ si tudd ñooñu ay doomu Cees lañ ñu dem si ñoom ñooñu xamal nañu mësu jot marché te ñun gis nañ ni yooyu voté nañ ko mu ne puisard bii nga xamante ni nit ñi dañuy may ay puisard mu ne huit millions la fa def ñu ne ko ñun yii chiffres yii yëpp ngay joxe ay la yéwén jox ñu compte de gestion yi ñu xam ñu mën a saytu mu ne du fi dal moom nag maire en personne comme ni ko Ousseynou waxee demoon na si kër ñëpp man si tere lay waxee moom moo taxaw assumé ma ne yéen de yéen may wax dëgg soo leen ma dimbalee ba retiré plainte bi nga xamante ne moom moo nekk si wàllu yoon ñu mën a toog waxtaan ëllëg orientation boo leen wax moom laay def parce que ñi may àndal jox ma jox ma rek. sama ñëw bi may ñëw sax tàgguwuma leen te loolu feeñ na bi ñu demee si biir bureau conseil municipal bi parce que ñi farandoog moom bi ñu yégee ni maire seet nañu ñoom am nañ loo xamante ni daf leen a bett moo tax tey jii heureusement nag ba ñun dossier bi du suñu dossier commune Thiès lañ ko porteloon Thiès Ouest lañ ko porteloon xaalisu Thiès Ouest la ñun niñ siy participer noonu la si jaaykat caaf di participer Pakasen bi joxuñu ko le maire ndax mbubbam bu rafet Thiès commune Thiès Ouest lañ ko jox ñun loolu lañ porté woon pour ñu leeral xaalisu population Thiès Ouest Thiès Ouest nag ñun ñu ngi leen remercier par rapport ak les coups de ak seeni message ak seeni ñaan ak saa su ne ñuy laaj fan la dossier bi toll ñun ñi ngi tàllal loxo procureur à ce que lépp loo xamante ni dafa am si dossier bu commune Thiès Ouest bi mu leer naññi en ñun ñi ngi ñi ngi si dem sans état parce que alalu moo alalu askan wi la du alalu ndonal kenn bokkoon ci coalition bi porté woon jiite muy euh, coalition yeewu askan bi Baye Serigne moom frère je le prends aussi ak euh, waa Pastef muy coalition yeewu askan bi porté woon Mamadou jiite ñu def ko maire Thiès Ouest si loolu laay intervenir di wax population Thiès Ouest Euh, di leen baalu àq parce que lu tax ñuy baalu àq mooy ñun ñoo porté Mamadou jiite ñun ñoo def Mamadou Djité candidat fal ko bi ñu ko falee aussi dañ amoon ci moom yaakaar parce que euh, nit boo ko xamul mënoo ko juger booy ànd ak nit da ngay ànd ak moom avec le temps ngay xam kii est-ce que bëgg na dëkk bi wala kii est-ce ku jub la wala kii est-ce que nit la boo xam ne pare na pour liggéey avec le temps bi ñu ànd ak moom on a découvrir beaucoup de choses bon loolu moo tax ñu ni Thiès Ouest dañ leen di baalu ak si choix boobu ñu leen tànnal loolu moo indi tey combat bi ñu porté ko parce que combat bi boo gisee ñu porté ko du dara mooy dafa amoon un programme bu ñu amoon jaay ko askan Thiès Ouest muy un programme boo xam ni changement lañ waxoon rupture indi lu bees bi ñu ñëwee ñu dawal un an deux ans on a vu que kii ñu jiital jubul ay kàddoom ak ay jëfam ute na trop soo dégloo muy wax ba indi ay aay indi ay référence ci sunu sëriñ bi sunu soppe bi sëñ Moustapha nga xam ni ku ci nekk da koy tiitaroo bu waxee nga ni kii kat ku jub la mais boo xoolee ba si biir dem ba au fond gëstu ay mbiram da ngay xam ni kii jubul ñun bi ñu demee ba découvrir ce sa gela ñu ne ko ñun kat du ñu doon sa complice di ànd ak yow ci jeu yi ngay nax sa Thiès waay di nax Thiès Ouest ba sa mandat jeex yow nga dem sa yoon ëllëg ñu tase ak waa Thiès parce que ñun ni ko euh, sama collègue bu waxee ñun ay doomu Thiès lañu ñun Thiès la ñu juddoo Thiès la ñu màggee te bu ñu deewee Thiès la ñuy suul moom wóoruñu moom fan lañ koy suul ndax dëkku fi il n'est pas Thiessois à 100 pour cent il ne pas waa à 100 pour cent kon ñun amour ak affection bi ñu am pour Thiès moom par rapport ak moom am na différence bon li ñuy wax rek mooy dañuy alerter. parce que damay bañ a retenir la parole amul solo wax nañ li warax lépp dañuy def alerte di ñaan parce que li olof di naan xamoon naa ko moo gën yëguma ko am na loo xam ni bientôt bientôt six mois avant la coalition Diomaye di ñëw au pouvoir la xeex bi am na ñoo xam ni dañ ko bëgg a politiser naan ñoo coalition bi dafa ñëw au pouvoir ñu commencé di attaquer no bi ñu nekkee avant ñuy nekk au la coalition la ñu porter ce combat combat bi xool leen ñu ko porté Pastef PM réew mi coalition Benno Bokk Yaakaar Jëngu MRDS ak société civile ak ay mouvement de soutien ak RV République des valeurs responsable yooyu kenn ku si nekk ay principe moo ñu boole bu loolu boo ko xool rek xam ni ñii li ñuy xeex combat la boo xam ni c'est pour l'intérêt de la population élection yi ñu génn Thiès Ouest tranché na ndax élection présidentielle lañ demoon élection présidentielle li nii positionnement parti yi ñëwee moom parti bi mu nekkoon directeur de campagne nekk euh, secrétaire communal partem si Thiès Ouest moo ngi jël cinquième kon d'abord population Thiès Ouest sanctionné nañ ko war nañ ni ko bañ lay fal coalition taxoon ñu fal la mais xam nga ni yow bis boo yëkkatee sa loxo dañ naan la wàcceel am na maire boo xam ni deux ans nga yore ko maire yi dem élection amoo même pas 500 voix li gën a am solo si maire mooy social nga jël jox ko koo xam ni moo téye social bi partem boo xoolee Thiès Ouest yëpp amul sax 100 voix 66 à quelques voix waa ñu minorité boobu ñoo yore Thiès Ouest est-ce que ñooñu Thiès intéressé na leen est-ce que ñooñu bëgg nañ liggéeyal waa Thiès ñun waxuñu voté wuñu on a voté budget baa ngi nii dinañ ko voté nañ ko depuis musuñu bloqué lim ñuy woo c'est pas vrai dañ ko demandé ni ko 800 et quelques millions yi ñu la voteel boobu ba léegi ba ngay def virement de crédit. social yi nga wax on a déjà voté ça ñun li ñu bëgg mooy la presse je vous invite yéen aussi ngeen dimbaliñ su liggéey bi ndax ñun li ñuy wax ku ñu xam ñi toog fii xam ni ay nit la ñoo xam ni du dara waxuñu pour leurs intérêts bu ñu toogoon suñu kër wala ñu dégluwoon li jiite wax kon heure bi suñu affaire baax na mais yàlla dimbali na ñun ñu toog fii Thiès Ouest moo ñu intéressé population Thiès Ouest moo ñu intéressé bu ñu sëñoon Thiès Ouest mooy dàq si Thiès si région si département Thiès bu ñu sënoon Thiès dañ koy jël référence am na yenn maire yoo xam ne sax di nga cité ni lii ak lii def nañ ko parce que je prends témoin mooy lii fekk ñu ko fi woon te gis nañ ko mais ñun notre problème man j'étais adjoint au maire nee na nee na génne na ma parce que je dérange mais kon sant yàlla parce que bu tekkee je dérange si lu positif maa ngi ci sant yàlla kon moom légitimité boobu amu ko ñun li ñu bëgg mooy ñi gis loo xam ni ñoo ko commencé muy terrain nuit ñu def fa lu bees ñu inauguré mais li ñu fi jot a inauguré yëpp du suñuy chantier léegi huit cent et quelques millions yooyu ñu voté mais on demande réalisation yi fan la wala dañ koo gas suul la presse def leen micro ngeen dugg si Thiès Ouest ngeen vi defal seen bopp votre reportage ngeen laaj la population moom li mu liggéey li mu wane ngeen ànd ak yéen mu wan leen ko Sénégal àtte. Fatimatou Zahra Ndiaye coordinatrice Grand Thiès Pastef Thiès Ouest di wax ne. su ngeen gisee yenn xar kanam yi ci géewu politique yi ngeen xam ne sunu autorités yi nañu bàyyi xel ne géewu politique changé na ndax dañoo jàppoon ne politique wax lu dul dëgg la politique tooñ la mooy yàlla la jaay doole ak lekk alalu askan wi ñun waa daara ñu jàppe woon ñu ne dañuy xaar ci ñuy sang néew yi ak di tudd doom yi ak di jiite ci jumaa yi ak di xutba ñu ne leen déedéet politique jaamu yàlla la politique ragal yàlla la politique njub la politique mbaax la waaye liy dox ci sunum réew it incha allahu rabbunallah ca daara ja lañ jóge ak ci école araab yi waaye dinañ ci doxal dugal sunu loxo ba mu saf-saf raqib nag ak atit ñoom ñoo ñuy seede fii li waral it ñuy ñëw di indi sunu kàddu yi dañ ne wa awfu bil ahdi na ngeen sàmm dige yi ak kóllëre yi ndax inna la de kaana masula kóllëre ëllëg da koy laaj kóllëre weesuwul ñu jógoon en tant que man pat patriote bokk Pastef da nekk fa conseillère dama jógoon di dugg ci askan wi di yor microcentral di dagaan baatu askan wi di leen wax ne bés bu ngeen ñu falee dinañ soppi lii dinañ def lii dinañ def laa waaye di campagne ci projet Pastef parce que projet boobu comme moom laa maîtriser woon moo tax moom laa doon wax dégg nañ ma du jiite ci suba mu ne nañuy wax waaw moom ci wax lañ ko campagnale ndax booba xamuñu acte bu mu fi def comme man exemple laay jël ci man ma Mamadou jiite dafa wax ne nañu wax ma ne ko dinañu wax ndax amuñu amul jëf jum fi jëf juñ koy waxal ci jëf jooju ci laa appuyé ne man sax su doon man tey jii la mu gën a néew ci Pastef mën nañ maa waxal ne def naa dara ci dëkk bi mooy organiser naa fi concours alxuraan maye fi ay terrain kon moom ci wax lañ ko campagnal ba fal ko waaye waxal campagne luñ ko ci ni daf fee maye doo de sang campagne luñu du jiite ne daf fi doon def social campagne luñ ko sax ni da daan joxe azaka di ko séddale comme ni ñu koy defee suñu bitik bu ndaw bi kon ci ay wax lañ ko campagne loon kon lii muy jëf amuñu doole ju ñu ko faje lu dul ay wax te dinañu ko wax dinañu ko dénoncé ba ñépp toog seen kër yi dégg li xew lan la ñu ko lan la ñuy dénoncé Mamadou Djité li ñu koy dénoncer mooy gestion bu bon man nag su fekkee ne da nga maa voteloo 800 millions ma votel la ko te gisuma lu palpable loo ci def ma votelaat la cent million comme ni ko Bekaay waxee 50 et quelques dugg ci ci aide social yi boo may def loo waat report report wala nga may def loo waat virement de crédit du ma ko def parce que la ma la voteloon foo ko jaarale budget bu njëkk bi mu doon kaas ne ñenn ci ñun voté wuñ ko duñ ko voté ndax 11 millions ya ma ci gis ñu bind ko ne auto SM secrétaire municipal ñuy jël ci xaalisu commune bi di ko ci utal oto bu 11 millions budget bu mu dugg du ma ko voté waaye ren ji votel naa ko budget bi kon lii muy wax ne dañ ko bloqué bloqué wuñ ko ndax voté nañu ko waaye nag du ma nekk koo xam ne chaque jour nga laaj ma fukki junni wala at mu nekk nga laaj ma ñaar fukki junni su at ma jeexee ma saytu loo def ndekete matul 4500 kooku booba laajatee ñaar fukki junni non seulement du ma la ko jox waaye dinaa bloqué fépp fu mu mën a jaar kon commune Thiès Ouest xam leen ne li tax lii ngeen gis ko aka yomboon tey ñu ànd ak maire ut fa ay privilège tëdd ak terrain yi ñu jox ñu ko ñu ne patt ak moom liy génn ak liy ruus ñu jël ko parce que loolu mooy aada maire yi aada yi mooy recette yi ak li ko jóge ci commune bi day am ñu cay baax la ndax bëri na maire yu ñu fi fal ba ñu folli ko jóge fi xam nañ ne seen soldu yañ leen di fay ci maire bi mayu leen liñ fi am kon Sénégal nañu dellu siwaat xam ne communes yi ñoo mën a jàppale état ci liggéey bi li nga xam ne dañ dafay jóge ci sa commune nga delloo waat ko ci sa commune ci ay reboisement ci defar ay ay éclairage public ci defar ay jardin public ci defar loo xamante ni ay pavage ba nga xam ne sa commune ndox mi bu ñëwee dina jàll ba nga xam ne sa commune dina leer naññ ba nga xam ne sa commune bu xale yi ñëwee sax dinañ mën a am fu ñu fowee mag ñi bu ñu génnee dinañ mën a am fu ñu féexloo aide sociale yi nga xam ne dañ la koy voteel te mësoo pare ba joxe ne aide sociale bi bu dee téeméeri nit ñoo nekk commune Thiès Ouest juróom fukk yi am nañ kon déwén la yenn juróom fukki am loolu mësul am kon xam leen ne gestion bonne la ñuy xeex te dañuy ñaan yàlla buñ dee buñ ñëwaatee di leen dagaan baatu askan wi du ngeen ne yéen yéen a fi toogoon donc ànd ak maire di yaataa yembe di lëmbeeg suñu xaalis ba ko ba ba seen mandat jeex ngeen dem déedéet ni ngeen xalaat ne même bu amee lu bon loo xam ne ci commune bi dafa baaxul ñun dénoncé woon nañ kon xam leen ne population bi amuñu lu ñu leen di xañ ndax yaakaar naa bari na ci ñun fii ñoo xam ne ba ñuy def social booba ñëwuñ ci mairie bi mairie bii nag soxlawuñ fi poste boo xam ne dañ fay amee dara ndax ñi ngi sant borom bi subhanahu wa taala soxlawuñ dara ci maire gestion bon la ñuy defanteeg moom kantaa nag waaj gi mu waaj keroog woote jàmm mel na kuy ut jàmm te la mu waxoon lépp mu teg ko ci jàmm ak salaam indi ay nerf ñuy dóor conseil yi àndut ak moom maire dafa dem ba jaxase conseil yi ànd ak moom ak yi àndut ak moom keroog ci xeex bi ba conseil yi ànd ak maire sax dañoo jóg di xeex ak conseil yi àndut ak maire maire taxaw di ko coacher ndax nerf yi bi ñu dugg see maa ko fekke raqib ak xatiit moo nekk fii raqib ak xatiit ma tiim maire dafa taxaw di won bokk ci ñiy won nervi yi conseil yi ànd ak pour ñu dóor leen ba wax leen génne leen salle bi maire di taxaw naan génne leen leen préfet toog policier yi bloqué nervi kii conseil yi nga xam ne ànduñu ak maire ci bunt bi nervi yi taxaw nag di xaar ku def lenn dama ne monsieur le maire di Djité gestion bu bon boo fi indi boo xam ne buñ ko votee du doon njariñu askan wi dama ne dinañu taxaw ñu bloqué ko du jàll incha allahu rabbuna allah